Euh, avant ngay nekk ministre euh, directeur général Prodac nga woon tey jii mu am sujet bi nga xam ne dafa jëm ci Prodac est-ce que affaire vingt neuf milliards yi am na rapport waxuma rapport IGF wala IGE est-ce que réellement am na rapport. voilà euh, deuxième deuxième question bi lan nga mu mën a wax lu leer ci affaire vingt neuf milliards yooyu yow mi nga xam ni. xam <coughs> nga directeur général Prodac tey nga nekk ministre de la jeunesse. voilà. sànq kii bi wax na ko euh, euh, rapport bi wax na ko si bu ñuy présenté avant may nekk foofu aussi j'étais au ministère de l'économie et des et loolu c'est une réponse à ceux qui pensent que ñun rek ñu namee ñu parce que voilà dañu am benn opinion benn position c'est pour dire aussi que ñun am nañu jaar jaar maintenant par rapport ak li nga wax ci 29 euh, milliards yi man de am na loo xam ne mun naa ko wax suma akulaay taala mun naa ko wax ci barke weeru koor bu ñu nekk parce que nag nit ku nekk loo wax ëllëg war nga ko waxaat man li ma ci xam mooy képp ko am xam-xam xam na ne su la yàlla mayee nga occuper benn fonction bu bees nga war a def passation de service ñi xam administration xam ni li may wax dañ lay génneel rapport yi fa mus a am loolu dafa bokk ci dossier de passation yi d'ailleurs sax loolu ci wàllu administration dañ koy classé ci dossier confidentiel yi maanaam tey suñu la faloon tey Prodac wala ñu fal la tey ministère de la jeunesse dañ lay laaj ne ñëw fal ngañ la fal bees léegi nag yow article premier mooy ñaata rapport ñoo fi mus a am yoo xam ne rapport la yoo xam ne existé nañu ñu ne la 10 rapport la wala 3 rapport la wala 4 rapport ñu jox la ko dañ la koy jox pour yow nga mën a xam lan lañ fi sikkee woon sa morom pour yow sooy liggéey nga mën a xam lan nga war a moytu loolu c'est une réalité qui existe tey yaakaar na ci TFM du ñàkk am na loolu maanaam suñu changé directeur général bees maa ngi ñaanal directeur général bu yàgg fi lool mais suy ñëw wàllu administration dañ lay wax ne est-ce que mus na am rapport donc loolu c' est un élément important boo xam ne man si laay sukkandikoo pour wax li ma xam man ñu ngi ma fal en juin bu may ñëw Prodac bu may def sama passation de service question boobu ñu war a répondre ndax rapport am na wala rapport amul la réponse était négative gisuma fa rapport surtout rapport bu tudd IGF wala rapport boo xam ne rapport Cour des comptes la wala sax rapport IGE man gisuma ko fa bu may quitté bàyyi ma fa rapport IGF bàyyi ma fa rapport Cour des comptes bàyyi ma fa rapport dara bàyyi naa fa nag ñaari rapport benn bi rapport IAF la woon inspection interne boo xam ne dañu ñëwoon ma jamono boobu maa ngi fa woon bàyyi naa fa ne man maa ko laajoon sama ministre jàppale ma si muy rapport bureau organisation mais rapport IGF moom fekkuma ko fa bàyyiwuma ko fa loolu moom c'est une réalité qui est là mhm. maintenant 29 milliards yi ndax am na lubajoo wala amul lubajoo man daal li ma jàpp mooy man bu may ñëw Prodac dañ ma ne woon 29 moo war a tabax ñeent dak ñeenti dagg yi nag dëgg-dëgg yàlla ñaare inauguré nañ ko yeneen ñaaree ñu ngi ci chantier c'est vrai am na retard waaye xaalis ba mu ngi fa pour ñoom suñu paree ñu fay leen donc man mënuma confirmer détournement man je dis de manière claire te suñu ma woon ba tribunal ba àllaaxira laa lay wax keroog yow ma xiyaam ñu ne ma dañuy attewaat affaire bi nii man sama baat ci kaw dinaa ne yàlla suma borom man bu may ñëw Prodac fekk ma fa rapport IGF fekk ma fa rapport IGE bu ma fay jógee joxuñu ma rapport Cour des comptes joxuñu ma rapport IGE loolu man mën naa ko seede léegi ci 29 milliards revenir mm-hmm. ah, ah. vas